fi nekk limaamul laay la Bye. mbokki yi jërëgeen jëf jërëgeen jëf nu ngi sant yàlla bu baax ci bésub tey bii di sunu bésub maam Babacar ñu toog ci ëpp ëttam mu waxoon ne ku yàlla nam ma faj sa boo duggee sama ëtt sa aajo faju na wax alhamdulillahi rabbil alamin ki ñu doon xaar ñëw na si dogalu ñu bor si sunu dogalu borom muy Seydi Alxasan Laay mu sunu baay Bachiru Laay mu maam Babacar Laay maam Seydina Limaamullah waaye ci ndigalal xalifa bi di weejuram ak ay rakkam la fi tooge Alassane ñu ngi lay dalal ak jàmm Seydi Alxasan Laay feggoog ay doomi bàjjanam di ay magam Seydi Ibrahima Seyni Laay mu sunu yaay Ulaymatu bu ñu ko tuddee ak taala mu yóbbaale ñi ci des ñépp yàlla na nu yàlla dollee sutural jàng nañu alxuraan ji ba pare mu des xatmu bi sanga bi wax ne Seyna Omar imam mooy tëj xatmu bi kon ñu ñëpp nanu teewlu fu waay tollu rekk mu wax amin suñu paree ñu dugg ci liggéey bi bismillah quwwata illa billahi al-ali allahu akbar allahu akbar allahu akbar lillahi alhamdu wa shukru bismillahi rahmani rahim inna amdalnahu fi laylati alqadri wa ma adraka ma laylatu alqadri laylatu alqadri xayrun min alfi shahr tanazzalu almalaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hatta matla'i alfajr salaamun hiya hatta matla'i alfajr salaamun hiya hatta matla'i alfajr allahu akbar bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad allahu akbar allahu akbar allahu akbar bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad allahu akbar allahu akbar allahu akbar bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu akbar bismillahi rahmaani rahim qul a'uudu bi rabbil falaxi min charri ma xalaqa wa min charri غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله bismillahi rahmani rahim sadaqallahu alazim wa ballaga rasuluhu alkarim wanfahna bil ayati wa dhikri alhakim waj'alhu lana hujjatan yawma ddin allahumma anfa'na bima sarafta fihi min alayat wa dhakkirna bima darabta fihi min almasulat wa kaffir bi tilawati anna sayyi'at innaka mujibu da'wat اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تخريف أو تقديم أو تخير أو زيادة أو نقصان أو تحويل على غير ما أنزلته أو تهجيل عند تلاوته أو كسل أو زيخ لسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إصغار بغير بيان مع الأهداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير وسعادة والبشارة والأمان ولا تحتملنا بالشر والضلال والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وسقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا وسط الجنان وارزقنا جوا سلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أقداننا وذغاب غمومنا وقائدنا وصرفنا إلى جنتك جنة النعيم اللهم اجعل أنسنا في المحسن ومصاحبنا في المحن ومصباحنا في الظلم ودليلنا في الخير ومنقذنا في الفتنة وعاصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم أهتم بالسعادة آجالنا وحقه بزيادة آمالنا واخرن بالعافية هدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك, رحمتك مصيرنا نزل واسم سجال عافك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا ومن علينا بستر عيوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك دارنا وسقر بك زهرنا واحتقارنا وأمن من الجوع والخوف والفتنة والفقر والمرض بلادنا السنغال وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد إمام الله المهدي المنتظر عليه الصلاة والسلام اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح سيدنا أبا بكر صديق رضي الله تعالى عنه وسلم اللهم بلغ صواب ما قرأنا ونور ما تلونا لروح سوانا فاتم قوم الله إلى جميع الأسرة اللهم بلغ صواب ما قرأنا ونور ما تلونا لروح سيدنا ونبينا محمد إمام الله المهدي المرزق خاتم النبينا wa imaamil mursaliin subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun wa salaamun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin allahumma najjinaa ma'a naajiina wa laa tuhliknaa ma'al haalikiina safan sanaa wal mulka daa'im imaamul mursaliin allahumma sabitnaa bi kalimati laa آمين يا رب آمين يا رب آمين آمين آمين آمين من من آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين من يا رب آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى ñu jàng fatiha ñeen ak benn salaatu ala nabi ñu yéene ko maam ak njaboot ga ñu génn ci sunu maam sunu maam ummi ak dun patandoo yi bintu maam Babacar laay ñu boole waale ko ci ñaan gi ndax bàjjen ulay ak bàjjen bintalay barke ak mboolem ni wi jullit yëpp bismillah آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه ñu def ñetti fatiha ñetti ixlaas ñetti salaatul fatihi ñu jiital ci xalifa bi yàlla na ko yàlla bàyyi sunu alxasan si dogalu sumu boroom moo fas yéene taxawee mbir mi yàlla na la yàlla kàntanal jàppale la su zahiran wa baatinan buñ paree ñu ñëpp ñu tàllal loxo yi ñetti fatiha ñetti ixlaas ñetti salaatul fatiha bismillah yàlla na ko yàlla may ndam si guddi gi moom it barke bàyyi lay قولوا آمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين آمين يا رب آمين آمين آمين آمين آمين من يا رب العالمين من آمين آمين من آمين لا ilaha illa allah muhammadu rasulullah tahlana lawma baba lana almakhasida hayla la nawir qulubana ala alislam hayla la ijalana saadat ad-darain خيل العامة لنا في الدين بالمزين خيل لنا بسل أدا كل الهزل خيل لا يغفر لنا ذنوب ولا سامة وإلا لا لا تعدلن لنا عن الخيرات خيلا لا نوير لنا أمور بتيسير خيلا لا أعتر خابنا من النيران خيلا لا جنب جموعنا عن البدع خيلا لا ننفر جرى لما لديك خيل لا لا تحرمن أجر ذكر يا كريم خيل لا كذاك أجر كل ذاكرين خيل لا نبي يا نانو يا منانو خيل منانو خيل لنا بيو يا غنانو يا منانو خيل لا ابن اهلنا فضلك يا مفضل خيل لا مذي جميع الكيد الخاسدين خيل لا أنا وكففا أكوف دائما خيل لا أنجم أنا من شيطان خيل لا لا تلغن بنا تهيرا وبلاء خيل لا أسر حبلتك الجميلة ذلك الجميل خير لا وسرنا بسرك الجميل خير لا وسرنا بسرك الجميل خير لا لا تدعو انا على الخلائق خيل لك بفنا جميع ما أهمنا خيل لك يا مالك الملك ويا مجيبا خيل لا نسألك الإجابة بالنبي خيل لا سلا عليه لا ثم سلم خيل لا فمن علينا ربي بالفرخ الخرم خيل لا أجب لنا ربي كما وعدتنا خيل لا سلم جموعنا من العباد خيل لا نكس أنا مكايد الأحداث خيل لا يغفر لنا واغفر لوالدينا خيل لا يغفر لنا واغفر لوالدينا خيل لا يغفر لنا واغفر لوالدينا خيل لا ولجميع المذنبين ربنا إلا لا أحسن جموعنا بغيظك الحسن خيل لا لا تكلنا إلى جلاءة السواو خيل لا من علينا نيل رزق واسع خيل لا لديك واجعلنا من أكرم العباد خيل لا كذاك عند خير خلق ربنا خيل لا أزكى صلاتك عليه والسلام خيل لا لنا خيرا كل جبار عاند خيل لا دافعنا جور المجاورين وإلا لا وزر نسعر دين يا نسير إلى لا min yarum min yarum min yarum Thank you. ginnaaw ba xeewal yi wàcc li Baye Samba wax léegi mooy taw bi yi nga xamante ni nii xéewalu sama borom la wax na dëgg bisub ñaan boroom bi wàcce ci ay xéewal mel ni taw loolu mën nañ am njort lu rafet ni ñaan yi nangu na ñu sant ci gërëm ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu may xéewal bii mooy daayira Seydina Ababacar Laay di xabla kulli shay'in di nuyu la xalifa général Seydina Mouhamadul Makhtar Laye ibnu Seydina Majon ibnu Seydina Limamullahi al Mahdi ndax lépp lu am ci diina ji lépp lu yëngu lu ne moom la lu fa waaye taxawal lu ne moom la ndax bu ko soobul woon mu ne bu dara jib dara du jib kon bu ñu amee dëgërlaay ci moom lañ dëgërloo ñu ziyaare ko nuyu ko mu wàccee nuyoo bi ba ci njabootu Seydina Limaamu alayhi salaatu gépp gépp gépp góor ak jigéen mag ak ndaw di leen ziyaare ci bis bi itamit mu wàcc ci ay rakkam porte parole di sunu nijaay imaam euh, Mouhamadou Lamine Laay mu wàcc ba ci ay rakam imaam Mam Libaas Laay wàcc ci rakam imaam Mouhamadul Maxtaar ak seen ay jigéen yëpp te soxna loota jiite leen ak ki nga xamante ni moom la ñu jagleel bis bi tey di soxna Aminata Bintu Wahab Laay Thiaw mii nga xamante ne nii moo xajoo ñëpp moo yaatoo ñëpp ndax damay wax ni def lu ne di fa def ay tey de ba am na tàmbalikaay wa amul fin te amul benn yoon bu rek wan nañ ñu fa kanam boo xamante ne nii dina war a mën a tax tey bu ñu fi jógee suba duñu fa dellusi si de ñun noonu mu ñu ko defaraloon ñun amicale des élèves et étudiants Layène noonu la ko defar woon ñii nga xamante ni ñooy daayira Seydina Ababacar Laye loolu nag kubéer gu ne lii biteel bi nga tëj saf moom ngay saf su melee noonu dañuy wax ah war na war na kuy sa baay baabul ulum kuy bàyyam Seydina Limaamu Laay almahdi mi nga xamante ni nii da daan ab doxandéem jox ko kurusam naka demal ba sama ndey boo demee jox ko soobaa dina dalal teral la kon bu sëtam demee di ba di teral ay jaam yàlla lu war la lu yàlla la loolu nag moom lañu tuddee bés bi waaye dañu wax ni ñaanal mag ñi la mu mel ni kër gi ñi fi jóge bari na ñu bu ñu su limee sànga yi rek dinañu yóbbaale xas xasatan ñëpp ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo yeewoo ci kër gi laayeen ak fépp foo xamante nii ci àdduna bi la di jullit bi yàlla muy sunu yaay seen bu laay sunu yaay soxna jatu laay sunu yaay binta lay sunu yaay euh, maam fat fat caw laay sunu yaay ulay laay at euh, soxna faatu wadda laay ñoom ñooñu ñëpp rek bu ñu leen tuddee rek xaasatan dinañ ñu yóbbuwaale képp koo xamante nii rek jiite nga ñu ëllëg te xam nga ni ëllëg dinañ la fekk ji sa papa dama ko daan gis bu ñu daan dem ci armeel di ñaan bu ñu ñaanee ñeent fukki lixlaas ak benn dañ koy ñaanal aji dem gi bu tan maasalaam ala asan bu bàyyi Bachir ñoo ngi ñaan samaam yàlla may la ndam sangoo um nga lambaje salaatan ma salaam asan bu baay ñoo ngi ñaan samaam yàlla may la ndam sangoo um nga lambaje su ma paree rek bu soobee yàlla balaa muy jël loolu la bëgg ngeen ngeen bàkkal ko kon su ko defee gaañe moom mii lii mu ma sant nii ma defal ko ubbeel ko mënoon na ko defal boppam mat na ko sëkk macha allah yàlla na ko yàlla defal ko ubbee yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla euh, yiir aar ko sàmm ko làq ko fu yàq eggut alasan ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la ndam ni ma ko waxee léegi ci way ci bis bii ak bépp programme boo amati rek yàlla na sa borom defal la ca ndamu wax ji du gudd ndax afdalul kàllaam man xalla waddal la gaañe wax ji na gàtt rek te mën a am ay làmboo solo yoo xamante ni rek ku ne dina si mën am lu ci si ba déwén incha allah wala yeneen i programme incha allah ñu ànd ak sang bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asan bu bàyyi Bachir ñoo ngi ñaan samaam yàlla salaatu salaatan ma salam ala rasul mabay basir ñoo ngi ñaan samaam yàlla may la ndam samaam dalam jabal salaatan ma salam ala sayyid al asam kàddu yi dañ koy tënk rek te ci ndigal rek lañu ko jëlee muy ndigalu sëriñ bi Seydi Alxasan ibnu Imaam Bachir Baye Ibrahima Seyni jërëjëf kàddu yi matale na waaye jërëjëf it ci taxawu bi ak taxawaay bi ndaxte fii kër Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wasalaam loolu lañ ñu suñuy waajur ak suñuy maam ak yéen ñii yare mooy rakk topp mag doom toppa bàyyi te dañuy wax ne bàyyi bu tuut waaye itam nit lu la yàlla may ci martabaaki xéewal mënoo fexe ba mag sa mag te rafetal googu wane nga ko allah sëriñ bi mooy yóbbante ay kàddu yu cant ak ngërëm ñu boole kaat yu daayira bi yëpp gërëm ak a ñaanal mbooleem kër Seydina Limaamu Laay alayhi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ne ci kër gi ak itam ña nga xam ne ñooy kilifa yi kër yi ñuy ñaanal sunu bàyyi Basiiru Ndoy mu ngi fi woon sànq suma juumul mu sunu maam Dun Paate Ndoy borom jawaabu saayir te bokk ci bés bi bokk itam ci ñu nuy ñaanal moo xaritaam soppeem na Babacar Laye ak maam Oumy ak mbooleem seen njaboot di wàcc di wàcc ba ci soxna Mama Laye ni ko Baye Ibrahima waxee sànq a ah sëriñ bi itam di gërëm ak ñaanal ñi fi teew ñëpp mooy njaboot gi magam yeeg rakkam yeeg jarbaat yeeg mbooloo mi ak itam suñu baay yu tedd yi ñoom papa sama pap baj waa rafet ngëm ñi nga xam ne doon ay wóllëre si imam Mouhamadou Bachir Seyna ma ñoon tamit nijaay doom bàjjen lañ kon bu ñu fi teewee itam macha allah kàddu yi loolu lañ koy tënkee di jottaliwaat comme ni mu ko waxee kër gi kër Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wa salaam daayira bi ñëpp ñuy booloo di góorgóorlu ci loolu ku xool ñi fi teew ñëpp si jotaay bi ñu ngi gis ñoom sangaak ñoom Seynaak ñëpp xàjjaat seen amu fi du njabootu maam Babacar wala diwu njabootu Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu salaam di la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la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 ñu sant yàlla moom nag moo fas yéene yëkkati ay kàddu Seydi Alxasan mu sunu baay Basiiru Laay ñun ñëpp nag ñu ngi ñaan fuwaay waay toll rek mu toog ñii organise ñu ngi leen di ñaan nañu organiser waaye mu ànd ak dal ñu déglu sanga bi ni ma ko waxee rek sunu baay Basiiru Laay moo toog sunu baay Bas moo toog ni sunu kanam yàlla na yàlla kàntanal jàppale la barkeb Seydina Limaam waa sanga bi nee na bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina imaamillahi sanga bi nee ginnaaw bu ñu ubba ko ci sunu turu borom di julli ci seydina imaamillaahi nee na ñu ngi nuyu xalifatul muslimin seydina muhammadu maxtaar laay sanga bi nee na ñu ngi ñaan sunu borom yal na nu ko yàlla yal na ko yàlla sutural yal na ko yàlla dooleel yal na ko yàlla aar neena na ñu ngi nuyu sunu baay Muhammadul Amin Laay ak sunu baay Seydi Maam Libaas ak sunu baay imaam Muhammadu Maxtaar sanga bi ne ñu ngi leen di ñaanal ci sunu borom yal na leen yàlla dooleel yal na leen yàlla dooleel yal na leen yàlla dooleel yal na leen yàlla aar yal na leen yàlla muccal seen war may baay seen war may maam seydina imaamillah sanga bi ne ñu ngi nuyu sunuy bàjjen ne bàjjen loota moo ne ca bopp ba suñu bàjjen jee laay ak sunu bàjjen mam ak sunu bàjjen aaseetu laay ak sunu bàjjen mam kumbalaay moom maam Kumba Laay mu teewal leen ci jataay bi ne ñoom ñépp ñu am taxawaay bu rafet ci bés bi ci alal ci xel ak ci kàddu yu rafet ne sunu bàjjen maam Kumba mii moom mi leen fi nekkal amul lu mu deful ci bés bi ci ay xeeti xéewal ak xeeti taraanga ne bu ñu ko limee nag du càggi nag ne moom dong nga ci def moom ak ay magam ñoo bokk taxawu bés bi mu jaral leen nag lu ne nee bés bi seen bésu baay seen bésu baay la waaye bésu ahlu bayt bi yépp la bésu saxaaba yépp la nee na ñun ñépp ñoo bokk bés bii kon yal na yàlla barkeel yal na yàlla barkeel bés bi nee na ñu ngi nuyu sunu yaay mam ku ma njaay nee ñu ngi koy ñaanal yàlla taxawaay bu mu man ren yàlla na man déwén lu ko ëpp sunu soxna soxna Ayta Silla Laay moom amul nu mu sonnewul ci bés bi ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm nee ñu ngi nuyu sunuy yaay ñu jëkke ko si sunu yaay soxna Ndey Maram Laay mu nga ca ga toog ak tante Fat Silla Laay ak sunu tante Yaama ne tante Fat Silla moo leen fi toogal ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na leen yàlla defal jàmm yal na leen yàlla sàmm yal leen yàlla aar sanga bi ne ñu ngi nuy njaboot gi yépp ne ak sunuy baay yi nga xam ne ñoom lañ fekk ci jataay bi ne baay baj mu ngi nii toog ne sëñ Sam mu ngi nii toog ànd ak waa Refane Ngëm Mame Mbaye Guèye ñoom ñépp ñu ngi toog ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar nee na papaam ma njoon mu ngi nii toog nee na magam Seydi Ibrahima mu ngi toog mu yóbbaale ahlu bayti bi fi teew yépp ci tànt bi nee ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm nee ñuy gërëm nag soxna Sadio Laay soxna Sadio Laay bintu Baay Seydi Thiaw Laay Seydi Alxasan nee na dañu koy gërëm bu baax a baax a baax ndax bokk na si ñi nga xamante ne nga xamante ne ñu njëkk a jox cër ci kër Seydina Limaamullah cër boobu nag xeebuñu ko nee na cër boobu xeebuñu ko ndax soxna Sadio Laay nee na boo ko xoolee bàyyi Seydi Thiaw rek ngay gis ci moom ak ay maamam wax dëgg yàlla ñun sant ko bu baax a baax nee ñu ngi sant ay doomam Seydina Mandione masa États-Unis am na taxawaay bu rëy ci bés bi nee bi mu ko yëgee dafa yónnee ndaw dal di koy jox xaalis bu bari nekk joxal ma ko alxasan Seydina Mandione nu ngi koy sant nee na ñu ngi kay teg ci loxo sang seeni mi toog di rakkam mu àggalal nu ko waa kër gi yëpp ne incha allahu rabbi ñaanu sunu bàyyi Seydi Thiaw nee na ci fan yi ñu dëg ma rek la incha allahu rabbi ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla yokk seen xéewal yal na leen yàlla barkeel sanga bi ne gis nañu taxawaay yi ne boo xoolee ñaanu bayraan bi nu génn. Seydina Laay mi ngi nii toog. mu ngi nii toog. gis naa ni ñu taxawee ñoom ak ñoom ñoom gis naa ni ñu taxawee ñoom ak ñoom Baye Aada. ak Baye Jibilaay. njaboot gi yëpp nekk fa. mu rafet lool. ñu gis taraanga yi. ne ku ko xool. di nga xam ne. lu bayti bi. ñoo bokk lépp. defar rek moo nu war. sànga bi ne lu ñuy ñaan yàlla yàlla na nu yàlla gën a jubbaatle yàlla na nu yàlla gën a jubbaatle yàlla na nu yàlla gën a jubbaatle ne waxtu wi nag xat na waaye nag du ñàkk ñu sànni ay kàddu nee na Seyna Omar moo tëj xatmu bi léegi muy téereb sunu borom nee di téere boo xamante ne Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam da ko fonkoon démb fonk ka it tey kon ñuy ñaan yàlla lépp lu ñu fi jàng yàlla na ko yàlla barkeel yàlla na ko yàlla barkeel ne Abdoulaye ibnu Mas'ud daf ñuy nettali ne النبي يقول سمعت النبي يقول خوزوا قرآن من أربعة خوزوا قرآن من أربعة من عبد الله ابن مسعود فبدا به من عبد الله ابن مسعود فبدا به وسالم المولى أبي حسيفة وسالم المولى أبي حسيفة ومعاذ ابن جبل ومعاذ ابن جبل وعبيد ابن كعب وعبيد ابن كعب وأن ينتني بملن تان نين ينتني بملن تان سبيل صحابي si biir saxaaba yi nee na booba an Ababacar Sadiq anamu ana Omar ana Ousmane nee na ñoom ñëpp ñu nga foon teewul yonent bi tànn leen si seen biir nee na xam nga loolu lu muy jàngale nee na cër yi yàlla moo ko moom moo koy jox ku ko soob nee na yi cër yi sunu borom cëri sunu borom la ne ku yàlla cëral nanu ko nangu te xam ne yàlla moo ko cëral bëri na ay nee na bari na ay nit yoo xamante ne boo leen xoolee ci àddina danga naan ñii ñu màggalañ ci yàlla waaye fekke na ne amuñu dara sunu borom amuñu dara ci sunu borom ndax ñàkk nangu ab cër sanga bi ne lu am solo la ñàkk a nangu cër ñàkk nangu cër baaxul ci ab jullit baaxul ci ab jullit rawatina rawatina kër Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam kon nee na kon ku yàlla cëral nañu nañu xam ne yàlla moo ko cëral yuxbiru abdullahi ibnu mas'ud yuxbiru abdullahi ibnu mas'ud أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ عليه القرآن طلب منه أن يقرأ عليهم القرآن ويستمع النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلاوته إلى تلاوته عبد الله بن مسعود day nettali ne. Abdoulaye ibnu Mas'ud dafay nettali ne. xam nga fële yonent bi. xam nga fële yonent bi seppi na ko seppi na ko si biir saxaaba yi si biir saxaaba yi boo leen jëmmi alxuraan bu ngeen di wër jëmmi alxuraan xool leen ko ci ñeent ñooñu xool leen ko ci ñeent ñooñu ñu dox ab diir ñu dox ab diir ñoom ñëpp ñu toog ñoom ñëpp ñu toog yonent ne ko yonent ne ko yéegal ci minbar bi ci minbar bi nga jàng alxuraan nga jàng alxuraan xoolal boobu jàngale ne xoolal boobu jàngale yonent mi ka tànn nee na yonent bi ka tànn mënoon na ko wax ni noon na ko wax ni. yéegal nga jàngal ma saar sàngam. yéegal nga jàngal ma saar sàngam. bu yéegoon jàngu ko. ne bu yéegoon jàngu ko. ñu ne yoneen bi mu koy tànn dafa juum. ñu ne yoneen bi bi mu koy tànn dafa juum. waaye da nga ne ifal ma shita. waaye ifal ma shita. maanaam yéegal nga xool li la neex ci alxuraan. yéegal rek ci minbaat bi nga xool li la neex ci alxuraan nga jàng. Abdullahi ibnu Mas'ud. Abdullahi ibnu Mas'ud. di ñu nettali ne. di ñu nettali ne. mu ne yoneen. mu ne yeneen kayfa yaqra'uhu alayhi kayfa yaqra'uhu alayhi wal xaalu anna alqur'ana xat nuzila alayhi xat unzila alayhi naka lay jàngale alqur'an naka lay jàngale alqur'an koo xamante ne koo xamante ne jëmmi alqur'an ci moom la wàcc bi maana aqra'u alayka بما أخرأ وعليك بمعنى أقرأ عليك أقرأ عليك وعليك أنزل وعليك أنزل naka lay jàngal alxuraan naka lay jàngal alxuraan koo xam ne téereb yàlla bi ci moom la wàcc téereb yàlla bi ci moom la wàcc yooyu ay xeeti jàngale la nee na yooyu ay xeeti jàngale la yoneen na ko yoneen na ko bi annahu bi annahu yuhibbu yuhibbu an yasma'ahu min xayrihi an yasma'ahu min xayrihi mu ne dama ko bëgg mu ne dama ko bëgg dégg si beneen làmmen bu dul sama jos beneen làmmen bu dul sama jos si moom la wàcc bu ka neexoon mu téye lépp waaye téyewul lépp daf koo séddale nañu jàng si loolu kon nag ñu jàng ci loolu ñu xam ne. ñu xam ne. cër yi bu ko yàlla séddalee ba pare. cër yi bu ko yàlla séddalee ba pare. nañu ko nangu. nanu ko nangu. waaye ñun ñi ko yor. waaye ñun ñi ko yor. nañu koy séddale. nañu koy séddale. loolu moo jaadu. nee na loolu moo jaadu. Abdoulaye ibnu Mas'ud di wax ne. nee Abdoulaye ibnu Mas'ud di wax ne. mu ne fa qara'tu alayhi suuratu ma daal di koy jàngal suuratu nisaa. nee na mu daal di koy jàngal suuratu nisaa. mu ba ci digg bi. nee mu jàng ba ci digg bi. yeneen naka ka kafaa. yeneen naka kafaa kafaa. ndax booba yeneen xol bi fees na. booba yeneen tabi xol bi fees na. nañ ma jéggal nag. sanga bi nee nañ ca jéggal. taw bi taw bi. moo xaw kii programme bi. nee moo xaw a kii programme bi. moo tax moo tax. ñu bàyyi lu bari. ñu bàyyi lu bari. jéem tënk. ngir ñu jéem a tënk. ndax waxtu bi dafa xat. ndax waxtu bi dafa xat. waaye Baye Samba. waaye sanga bi waaw bismillah. bi maamu lu tax xol bi feesoon. nee na sanga bi maam limaamu li tax xol bi feesoon. ndax alxuraan dafa bëri ay nee na alxuraan dafa bëri ay ijaaz. am na lu ñuy woowee ijaazul adadiya. am na lu ñuy woowee ijaazul adadiya. loolu ñuy def lasraar xam nañu ko. ñooñu ñiy def lasraar xam nañu ko. am na ñuy woowee ijaazul taarixiya. am na ñu ñuy woowee ijaazul taarixiya. am na lu ñuy woowee ijaazul bayaani. am na lu ñuy wax ijaazul bayaaniya. am na lu ñuy woowee ijaazul xaybi. am na lu ñuy wax ijaazul xaybi yooyu ay xeeti xam-xam la yu daje si Seydina limaamullahi sallallahu alayhi wa sallam looloo tax alquran bu ñu koy jàng balaa ñu koy yeggal xol bi day fees kon lay Momadou kon lay Momadou ñun ñi nga xam ne ñooy jàng alquran ñun ñi nga xam ne ñooy jàng alquran nañuy roy ci Seydina imaamillah roy ci Seydina imaamillah nañuy roy ci moom ñuy roy ci moom. ndax ijaas yi ma fi wax yëpp. ndax ijaas yi ma fi wax yëpp. ay xeeti xam-xam la. ay xeeti xam la. yu nekk ci moom. yu nekk ci moom. moo tax Seydina Limaamu. moo tax Seydina Limaamu. alayhi salaatu wa salaam. xool ko ni mu doon dundee saxaaba yi. xool ko ni mu doon dundee ak saxaaba yi. ku leen daan suturaal la. ku leen daan suturaal la. kon ñun. kon ñun. lan moo ñu tere. lan moo ñu tere. ñuy suturalante sunu biir. ku leen daan yërëm la. sanga bi ku daan yërëm saxaaba yi la. ku amoon yërmande ci saxaaba yi la. moom Seydina Limaamu aleyhi salaatu wa salaam. kon laay Momadou. ñun laayan yi. nanu xoolaat. sunuy doxalin. nanuy xoolaat. sunu comportement. Seydina Limaamu. aleyhi salaatu wa salaam. dimbali ay taalibeem la. ku mënoon dimbali ay taalibeem la. lan moo tax dimbali lan moo lan mooy problème bi. limaamu loolu la fi indi. nee na maam limaamu loolu la fi indi. bàyyi ko ci Seydina Issa Ruwala. bàyyi ko ci Seydina Issa Ruwala. Seydina Issa bàyyi ko ci Seydina Mandione. Seydina Mandione bàyyi ko ci ci maam Babacar lan moo tax. bëgguñu di dimbalante sunu biir. leçon la. nee na loolu ay leçon la. ñi nga xamante ne nag. nee ñi nga xamante ne. ñooy jàngale alxuraan yi. ñooy jàngale alxuraan yi. nañu leen fonk. nañu leen fonk. Serigne Mamour a ngi nii. nee Serigne Mamour a ngi. Seydina Omar. Seydina Omar. ñoom ñoo nekk ci laayeen. ñoom ñoo nekk ci laayeen. di jàngale alxuraan. di jàngale alxuraan. nañu leen fonk. ndax lu tax. yonent dafay wax ne. yonent bi dafay wax ni. law kaana alqur'aana fi ihaabin. law kaana alqur'aana fi ihiba ihiba. fii ihaabin fii ihaabin maa masathu naar maa masathu naar mu waxaat ci beneen riwaaya mu waxaat ci beneen riwaaya law jumia alqur'ana fii ihaabin law jumia alqur'ana fii ihaabin maa axarathu naar maa axarathu naar mu waxaat ci beneen riwaaya mu waxaat ci beneen riwaaya law kaana alqur'ana fii ihaabin law kaana alqur'ana fii ihaabin maa axalathu naar maa axalathu naar maa akalathu naar waaye xoolal loolu ñiy jàngale alxuraan di def alxuraan jooju ci xale yii nanu leen fonk ndax bu ñu jëloon jëmmi alxuraan bu ñu jëloon jëmmi alxuraan ci kër gi ci tënk ci tënk def ko ci mbuus def ko ci mbuus sànni ci safara gi sànni ci safara gi safara gi du ko lekk laay Mamadou du Mamadou Maxtaar nañu fonk nañu fonk téere bi yàlla bi. téere bi yàlla bi. ñu fexe. ñu fexe. xale yi xale yi. ñi def si seen bopp ñu koy defee si xa euh, boppi xale yi. ñi koy def si boppu xale yi. ñii nga xam ne ñooy ustaas di ko def ci boppi xale yi. nanu leen fonk nanu leen fonk. ndax damay seetlu ne. sanga bi ne dafay seetlu ne. li ñuy fay ci njàngum faransa mi. lii ñuy fay ci njàngum faransa moo ëpp fuuf. moo li ñuy fay. li ñuy ci njàngam alxuraan mi. boo waxee ñu ne la. boo waxee ñu ne la. wërsëg wi. wërsëg wi. mu ngi si njàngalem alxuraan mi. sunu borom. sunu borom. mooy séddale wërsëg nu ko soob. mooy séddale wërsëg nu ko soob. wàcceew ko nag. wàcceew ko nag. ñëpp amandoo ci saa si. ñëpp amandoo ci saa si. xusuus. xusuus. laysat mutasawiya. laysat mutasawiya. wërsëg. wërsëg. sunu borom. day xool. ko nu mu ko neexee. mu koy jagleel mu koy jagleel jaam ñi. kon laay Momadou nañu bàyyi xel message yooyu. kon laay Momadou nañu bàyyi xel message yii ñuy wax. nañu bàyyi xel message yooyu bu baax a baax. bàyyi xel message yooyu bu baax a baax. Abu daf ñuy nettali ne. nee Abu Hurayra. ci tënk ngeen ñuy nettali ci tënk rek ñu jégal. xale yi dañ ma ne xale yi dañ ko waxoon ne. une heure et ñu yemale fa mbir ma. Euh, waa Sekkeen ñi. waa Sekkeen ñi. ak waa Saareen. ak waa Njóobeen ñi. ak nun waa Njóobeen. waaw maa ngi jégalu. waaw noonu la noonu la noonu la. ñoom <laughs> xéewal nee na xéewal yi. daf leen di xaar. daf leen di xaar. loolu moo waral. looloo waral. xale yi nañu. xale yi nañu. une heure fu mu jotee. une fu mu jotee rek. nanu ko fa yemale. waaye Abu Hurayra daf ñuy nettali ne Seydina Omar. waaye Abu Hurayra daf ñuy nettali Seydina Omar jërëjëf. mu ne dafa am jamono ñu toog ak yonente ne dafa am jamono ñu toog ak yonente bi. yeneen ne leen. yeneen ne leen. la yusalliyanna maakum gadan rajulun min ahli janna. Mhm. mu ne leen. mu ne leen. bu ëllëgee. bu ëllëgee. dina am góor. dina am góor. bu bokk ci góori aljana yi. bu bokk ci góori yi. bu ak yéen. bu julleendoo ak yéen. lu yusalliyanna maakum ndax salli binnaas salli binnaas mooy jiital nit ñi mooy jiital ma annaas salli ma annaas mooy jullil ak nit ñi kon ñu jàpp ne waa ji bu ñëwee ñu jàppane ne waa ji bu ñëwee dafay julleendoo ak ñoom dafay ak ñoom waaye du leen jiite abu hurayra mu wax ne mu ne fa tamextu an neexoon ma ma nekk boobule góor xoolal abu hurayra fi mu toll woon ci jaamu yàlla ak ni mu jegee yonent bi mu bëgg nekk góor googu gi yonent di wax gi yonent di wax ne si góori aljana yi la si góori aljana yi la bokk. ñoom ñu ciy sikka sàkk. ñoom ñu ngi ci sikka sàkk. ñoom ñu ngi ci sikka sàkk. li ñuy ànd ak yoneen yëpp. leeru leen ne. leeru leen ne. aljana aljana mooy seen kër. Mhm. mu ne fa xaddawtu fa sallaytu xalfa nabi. Mhm. mu ne ma daal di xëy. nee na ma daldi xëy. daal di julli ci ginnaaw yonente bi. daal dee ci gannaaw yonente bi. mu ne. nee na mu ne. bi ñu jullee ba pare. bi ñu jullee ba pare. fan nee fan sarafan naas. wa baqaytu ana wa huwa. wa baqaytu ana wa huwa. fa baqaytu ana wa huwa. fa nee na moom bi ñu jullee ba noppi. nee na bi ñu jullee ba pare. ba nit ñi dem. ba nit ñi dem. ma toog ak yonent. ma ak yonent bi. mu ne fa izaa bi rajulin. murtazilun bi xirqa. murtaddun bi ruqa. mu ne mu jékki-jékki am benn góor daal di dugg. nee mu jékki-jékki benn góor daal di dugg. ci tënk ci colinam ci colinam. boo koy koy boo koy xool da koy xeeb. waa ji daal di dugg daal di jox yonent ñaari loxo. waa ji daal dugg daal day jox yonent bi ñaari loxo. daal di wax yonent daal di wax yonent bi. yaa nabi yàlla. ak wulaah lii. mu daal ne yonent. mu daldi di ne yonent bi. ñaanal ma si sa borom. ñaanal ma si sa borom. fadaahu nabi bi shahada. yonent daal di koy tontu ne. nee na yonent bi daal di koy tontu ne. yal na ñu la rey ci yoonu yàlla. yal na ñu la rey ci yoonu yàlla. boo ko waxoon Souleymane. nee boo waxoon Souleymane. dina ne sëriñ bi daal. dina bi daal. maa ngi ñaan lu ci moom. maa ngi ñaan lu ci moom. amul lenn luñ may ñaanal. lu dul lu dul. yàlla nañ ma rey ci yoonu yàlla. yàlla nañ ma rey ci yoonu yàlla. xoolul kaat-kaat yi. xoolul kaat-kaat yi. xoolul kër yu rafet yi. xoolul kër yu rafet yi. xoolul alal ji. waaye rek la wax. waaye lenn rek la wax. yàlla nañ ma rey ci yoonu yàlla. nañ ma rey ci yoonu yàlla. waaye bàyyil ma seeti beneen sëriñ. dem seeti maam libaas mi toog. dem seeti maam libaas mi toog. dafa mel ni moo gën a yombal ñaan. dafa mel ni moo gën a ñaan. waa ji daal di jóg daal di dem. ji daal di jóg daal di dem. nee fa lay tënke bëggoon nañ ma wax si maam xale yi nag bëggoon nañu wax si maam Babacar. waaye xam naa ne waxtu bi góobal nañu ko may. Mhm, waaw. ah sëñ Maodo. suñu ah, yàlla baax na. laaj moom toppandoo leen ci directement yi waay directement yi toppandoo leen ko toppandoo leen. léegi. nee na waaw waaw bii ma jox bàyyi ma jox ko Serigne Diaw <laughs> macha allah xasan jëlal mii naa yow kii papa ji adieu laay laay laay laay laay laay laay dinaa ko fay dinaa ko fay yëpp jërëjëf dinaa ko fay ah ñu de waa kër Thierno si la ñëw ne bàyyi laay naa kede baag juma ja si naa la ci yoonu diine julil ci bàyyi laay yaayi laay ci bàyyi laay dolli xëy xelma di waay waay Babacar si la ne baay laay bàyyi naa ka baak juma ja wisi naa la ci yoonu diine. yaa ilaahi julil ci baay laay yaay laay julli naa ci baay laay dolli ay darajaam ci di waay waay kër ba maa di yu njool ma woote Umar binta njëkk gëm ca góor ña yéemu naa ci ngëneeli diine ci baay laay baay dolli ay darajaam ci diine way di samba naan may ki la bay lay may ki lay njëkk gëm ci diine julil ci bay lay waay laay dolli ay góor gi Ousmane Ndiaye ca jooy wàlli nga ca nee ñu ngi gërëm suñuy maam muy waa kër Cerno Mbay Silla maam Seydi Silla mu ngi toog ne le ak maam Ousseynou Silla ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla yokk seen taxawaay. ñoom ñii la ñuy xoole njaboot gi bu baax. ah soxna ummi laay bintu maam libaas laay ngi lay ziar. ne yàlla xam na ne. thème bi mi ngi nii baa ngi nii ñu teg nii su lay téye ko. waaye bi ñu ñëwee. waaye bi ñu ñëwee. dañu gis ne daal. mbir yi dafa xaw a changé. mbir yi dafa xaw a changé. nañu def waxtaanu bayaan rek comme daaw waaye pare woon nañu ko bu baax a baax yàlla nag mooy dogal dañu koy sant yàlla nee di ñaan yàlla yàlla yàlla barkeel lépp maa ngi woon ci Abdullahi ibnu Mas'ud Abu Hurayra nee mu ngi woon ci Abdullahi ibnu Mas'ud nekkoon it ci Abu Hurayra maa ngi woon ci Abu Hurayra nee mu ngi woon ci Abu Hurayra waa ji ñëwee. nee bi waa ji ñëwee. mu ne yoneen ñaanal ma. mu ne yoneen ñaanal ma. yoneen ne ko rey ci yoonu yàlla. yoneen bi ne ko yal nañ la rey ci yoonu yàlla. bi mu paree dafa génn dem. bi mu paree dafa génn dem. Abu Hurayra ne ne wax yoneen. ahuwa huwa. ahuwa ndax kiñ ñu doon wax la. ndax kiñ ñu doon wax la. yeneen ne ko naam innahu huwa naam innahu huwa lakin innahu mamlukun li bani fulaan lakin innahu mamlukun li bani fulaan mu nekk moom la de mu nekk moom la de waaye loo ci xamul waaye loo ci xamul ab jaam la ab jaam la fa mu bawoo fa mu jaam jaam ñoom xool leen ñoom ay jaam duñu ñu ngi jige yonent bi. kii jaam la feneen. kii jaam la feneen. mu ñëw mu ñëw. yoneen ne leen. yoneen ne kii laa leen doon wax démb. kii laa leen doon wax démb. kii moo bokk ci góori góori aljana yi. kii moo bokk ci góori aljana yi. Abu Hurayra ne yoneen. Abu Hurayra ne yoneen. afala tashtarihi fa mu ne yoneen. mu ne yoneen. danga dul jënd nga gorel ko. dul jënd nga gorel ko. yeneen ne ko yeneen ne ko wa anni lii zalika ya aba hurayra in kaana allahu yuridu an yatalahu min mulukil janna mu ne ka mu ne ko naka laay jënd gorel koo xamante ne naka laay gorel koo xamante ne sunu boroom sunu boroom daf ko bëgg a boole daf ko bëgg a boole ca buuri aljanna ca buuri aljanna ya yeneen ne ko yeneen ne ko inna haadihi al aswad asbaha min muluki ahli janna wa saadatiha mu ne gis nga nit ku ñuul kii ngay gis. mu ne kat nit ku ñuul kii ngay gis. bokk na bokk na. si buuri aljana ya ak sangi aljana ya. ñu taxaw foofu. ñu taxaw foofu. xam man. sanga bi ne xam nga man. dañ may faral di woowe sanga bi. dañ may faral di woowe sanga bi. waaye sanga waaye sanga bi. sëriñ bi. ak sëriñ bi bokkul. sanga sanga sunu borom moo ko téyel boppam moo ko téyel boppam sunu borom moo téyel sanga bi boppam maanaam garaatu sanga garaatu sanga sunu borom sunu borom moo la koy tabbal lay jox yow nee du luñ lay jox lay jox de nee du luñ lay jox looy liggéey la kër Seydina Limaamu man ngaa bañ juddu ci kër Seydina Limaamu ñu daje fële ëllëg yowmal xiyaam ñu daje fële ëllëg yowmal xiyaam nga bokk ci sangi aljana ya nga bokk ci sangi aljana ya kon ñu xam ni kon ñu xam ni buur buuri aljana boo ci bëggee bokk da nga koy liggéey sangi aljana yi boo ci bëggee bokk da nga koy liggéey sëriñ bi nag mën na ne sëriñ bi nag mën na ne du ma weddi ne du ma weddi ne am na si ñoo xamante ne am na si ñoo xamante ne am nañ yaakaar ne niru nañ ay sanga si lu ñu gis waaw loolu sanga bi nee na loolu képp kuy ab sëriñ na nga ko bàyyi xel buñ la nee sanga bi na nga tiit nga liggéey ndax ñu ne la sanga bi fii ñu ne la sanga bi fii ki la wax sanga bi ki la wax sanga bi nga dajeeg moom aljana yow nga ëlbatiku yow nga ëlbatiku naan sanga yi ñoo nekk nële mustaqil <laughs> mustaqil <laughs> nee na loolu dafa doy waar nanu liggéey nanu liggéey. diine ji yombul de. nee na ji yombul. du ay wax du nañ liggéey nañ liggéey. juddu kër Seydina Limaamu. ci kër Seydina neex na lool. Baye Samba. Baye Samba. sunu bàjjen yi fi ne. sunu bàjjen yi fi ne. boo leen xoolee. boo leen xoolee. xam ne ñii. xam ne ñii. ay sangalañu. ay sangalañu. bàjjen maam kuma mii toog. bàjjen maam kuma mii toog. ku ko ne jàkk. ku ko ne jàkk. xam ne kii sangala. xam ne kii sangala. laa chàkk fii. nee na amul sikka sàkk ci loolu. ñu ngi nuyu soxna maam Ayta Seen. nee ñu ngi nuyu soxna maam ay Seen. moo soxna Ngone Laay. moo soxna Ngone Laay. ñu ngi leen di seen nele macha allah. am na ñu mbégte bu baax. Seydi Ibrahima. sanga Ibrahima Faye laay. ne sànq rek ñu ngi tudd sa bésu weejur Baye Seydi Thiaw. ñu wax ne rek fan yu néew la incha allah. gis nañu taxawaay bi nga si amoon daaw. nii muy dajale njaboot gi. di def ay xéewal yu am solo. yaatal ubbaku. sëñ Iba mii nit ku baax a ngi. mook Seydina Isa ñu baax lañu Seydina Mbay xam na li may wax defar rek moo ko tax a jóg yàlla xam na ni démb fi ma toog sama kër ñoom ñii xam nañ li may wax jigéen fekk na ma fa di tàgg Seydi Ibrahim si di ko défendre si di ko défendre. maanaam mooy défendre ndax Ibba mooy défendre kooku. di ko taxawu di ko taxawu. di ko jàppale. wallaahi loolu démb rek am na. sanga bi jërëjëf. yàlla na leen yàlla fay. mbir maa ngi noonu bàyyi. mbir maa ngi noonu nag. sanga dañu koy liggéey. ak sanga dañ koy liggéey. Abu Hurayra. mu ne yoneen. xeeti jaam yàlla yi. nee na xeeti jaam yàlla yi. naka lañ leen di ràññee. naka lañ leen di ràññee. si biir jaam yàlla yi. yonen ne ko. yonen ne ko. yaa Aba Hurayra. yaa Aba Hurayra. inna allah yuhibbu min xalqihi. al asfiya. al axfiya. al abriya. al shayata ruusuhum. al mubarrata wujuduhum. allazina ida tasinu ala al umarai lam yuzan lahum wa in xatabul mutanaimaati lam yunkaxu wa in xaabu lam yuftaxadu wa in xadaru lam yudaw wa in xadaru lam yudaw wa in talaw lam yufrax bi talaatihim wa in maridu lam yuaadu wa in maatu lam yushadu allahu akbar allahu akbar nee ñu taxaw foofu ci abu hurayra xeeti yàlla nee na xeeti jaam yàlla yooyu. <laughs> waaw. waaw waaw. xeeti jaam xeeti jaam yàlla yooyu. ràññee leen ci biir jaam yàlla yi. ràññee leen ci biir jaam yàlla yi. yoneen dafa ne Abu Hurayra. yoneen dafa wax ne Abu Hurayra. xeeti jaam yàlla yooyu. xeeti jaam yàlla yooyu. yàlla sopp na ci ñoom. yàlla soppa na ci ñoom al asfiya al asfiya awalan al axfiya awalan al axfiya ñu nekk ñoo xamante ne ñu nekk ñoo xam ne ñu raar lañ la ñuy doon ci société bi li nga leen di faral di gis du bari li nga leen di faral di gis du bari al axfiya ne al axfiya nekk ñoo xamante ne ñu nekk ñoo xam ne bu ñu la romboon tey. bu ñu la romboon tey. nga sàggane leen. nga sàggane leen. fekk yàlla bu mag la. fekk nitu bu mag la. al abriya. al abriya. bari. huwa al xaalisu. huwa al xaalisu. min az-zunubi wal maasi. min mooy nit koo xamante mooy nit koo xamante ne. dafa set ci bàkkaar. dafa set ci bàkkaar. yaa ngi bëgg a bari mhm, waaw yàlla na. yaa ngi bëgg a bari de. waaw Mamour bu mu ko xool bu mu ko xool. waaw. Mhm, waaw. noonu la noonu la. ngi ñëw. waaw waaw Laay Momadou. Laay Momadou. mooy ñoo xamante ne. mooy ñoo xamante ne. dañoo set ci bàkkaar. dañoo set ci bàkkaar. duñu yàlla mukk. ñoom duñu mooy yàlla mukk. duñu tooñ. duñu tooñ. duñu def. duñu def. lu sunu borom bëggul. Mm. wa in xatabul mutanaaimaati lam yuntaxu. Mm-hmm. xeeti jaam yàlla yooyu. nee na xeeti jaam yàlla yooyu. bu ñu ñëwoon. nee bu ñu ñëwoon. kër Ibrahima fay mi toog. kër Ibrahima Faye toog. bëgg fa soxna. bëgg fa soxna. Ibrahima day bañ. Ibrahima day bañ. danaan kii boo xoolee xam ne poos bi diisul. danaan kii boo ko xoolee rek xam ne poos bi diisul. xam nga loolu. ne xam nga loolu. dafa bari ci dëkk bi. dafa bari ci dëkk bi. daf bari. doyadil nit. ne doyadil nit. xeeb nit. xamuñu ne. te xamuñu ne ki gën sunu boroom moo ko xam allazina ne allazina iza tahzanu alal umara'i lam yuzan lahum bunte bu bu ñu fëgg si bunti borom alal yi yi du ñu leen tiggil bunte bu ñu fëgg. nee ñoom bunte bu ñu fëgg rek. du ñu leen tijjil du ñu leen tijjil. ndax xeeb gi leen di xeeb. ndax xeeb giñ leen di xeeb. nañu bàyyi xel ne. nañu bàyyi xel xeeti jaam yàlla yooyu. xeeti jaam yàlla yooyu. sunu borom. daf leen di bàyyi xel. wa in xaabu lam yuftaxadu. wa in xaabu lam yuftaxadu. bu ñu nekkee ci nee bu ñu nekkee ci kër. ñu nekk fa njaboot nee ñu nekk fa njaboot gi. am ay gan yu fa ñëw. am ay gan yu fa ñëw. duñu ko woo. duñu ko oo. duñu xool fu mu nekk. duñu xool fu mu ne. duñu xool ci lan la ne. duñu xool ci lan la ne. yàkkamti nañ sax mu génn. yàkkamti nañ sax mu génn. ñoom ñu jëflanteeg ñi ñu fa fekk. wa in xadaru lam yu daaw. wa in xadaru lam yu daaw. cey. bu ñu leen fekkee ci kër gi. nee bu ñu leen fekkee ci kër gi. am ñu fa ñëw. am ñu fa ñëw. war a gisee njaboot gi. war a gisee njaboot gi. du ko woo. du ko oo. moo ne day. moo ne day. ëppalewuñu ko dara ci kër gi. ko dara ci kër gi. ndax xeeb guñu ko xeeb. ñoom ñi fa nekk rek. ñoom ñi fa nekk rek. ñooy toog doxal. doxal moom mën na nekk ci kër gi. moom mën na ne ci kër gi. ñooñu ñëw. ñooñu ñëw. ba dem te du ko yëg. wa in talaw lam bi talaatihim mhm. comme ni ñu toogee nii ci mbooloo mi. comme ñun ñu toogee nii ci mbooloo mi. ñu jékki-jékki rek. jékki-jékki rek. sëñ Iba sëriñ Iba Fël nga gis am ñoo xam ne day nga xam nga gis ñoo xam ne seeni xol day metti maanaam bëgguñu sax. bëgguñu sax mu ñëw ci jotaay bi. wa in talaw. wa lam yufrax. du ñu si am mbégte. du si am mbégte. bi talaatihim wa in wa in maridu lam yuaadu lam yuaadu bu ñu feebaree bu ñu feebaree dañu wéet salal ba kenn du leen seet kenn du leen seet bari na fi nee na loolu bari na fi nañu ci bàyyi xel nañu ci bàyyi xel nañu ci bàyyi xel nañu ci bàyyi xel wa in maatu wa in maatu lam yushhadu lam yushhadu bu ñu génnee àdduna bu ñu génnee àdduna dañ sax dem jàmmalaay dañ dul dem sax jàmmalaay ba leen di seedeel sax lu baax moo fi am ba kaña moo fi am laay Momadou Seydina Limaamullaahi alayhi salaatu wa jàngaluñu loolu te it andiw fi loolu andiw fi loolu de nañu tee li fi Seydina Limaamu andi alayhi salaatu wa salaam xam naa ni njaboot gi dinañ bëgg waxtaan ci Mame Mbaye ñu waxtaan ci Mame Mbaye waaye taw bii waaye taw bii dafa mel ni dafa mel ni mu ngi tàmbaliwaat mu ngi tàmbaliwaat te yaakaar naa ni te yaakaar naa ni yoon yamul ci benn nag Seydina Omar dafa am lu ma dey Omar am na lu ma dey sànq mu ne damay bañ mu ne damay bañ nga gàddu àq nga gàddu àq jaam yi fi ne jaam yi fi ne bi ma ko waxee nag Amar xamal ni si laa tiit ak sànq ba léegi <laughs> ah. <laughs> daf ma ko déy fii daf ma ko déy daf ma ko déy loolu laa lay bañal ne loolu laa lay bañal comme loolu la may bañal comme loolu la may bañal taw bi arrêté woon na bi arrêté woon na ñëwaat na ñëwaat na ñu def ñaan nañu def ñaan lay Momadou nañu def ñaan lay Momadou ñu ngi nuyu njaboot gi yëpp di gërëm njaboot gi yëpp di sant ñëpp laay maxtaar di ñaan sunu borom yal na yàlla barkeel bés bi yal na yàlla barkeel bés bi sëriñ Mame Mbaye Laye mu bàyyi Seydi Thiaw sëriñ Mame Mbaye Laye mu bàyyi Seydi Thiaw moo war a taxawee guddi gi nanu ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla dooleel wallaay sanga bi nee na Mame Mbaye ku baax la ku maam mbay laay ku oyof ngi doon maam mbay laay ku joxe cër sanga bi ne maam mbay laay daf ma yéem boo leen dajee boo yeexee sax mu dal di lay sujootal kooku nit ku baax la maam mbay nit ku baax la guddi gii maam mbay laay yàlla na ko yàlla taxaw yàlla na ko yàlla taxaw am nañu yaakaar ci moom dañu ne ay xale yu ndaw la ko daan gis muy waxtaan ñu màgg di ko gis muy waxtaan ñu ne ba màgget di ka gis muy waxtaan kon laay Mamadou ñaanal ka rek lañ man ñaanal ka rek lañ man ñuy gërëm suñu mbokki waa Malika ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm waa Cambérène ñu ngi leen di sant gis nañu taxawaay bi ñu ngi leen di gërëm xale yi bu baax. xale yi imaam Bachir. xale yi imaam Baye Bachirou Laye. seen taxawaay rafet na. ñu ngi gërëm ñi ñu àndal ñëpp. ñu ngi gërëm ñëpp. ne njaboot gaa ngi. njaboot gi ñëpp ngi ni macha allah. waaw. macha allah sembar ga ñoom ñëpp ñu ngi fi. waaw waaw njaboot yëpp Pam Ndiogo nga ne le. di sunu mag gisu ko woon. moog Chérif Ousseynou Laye Chérif ñuy mag. ñuy ay référence. ñuy ay di ay royuwaay. di ay royuwaay. ndax seen taxawaay. ndax seen taxawaay. ci dëkk bi bi. kenn déggu leen ci dara kenn déggu ci dara. kenn déggu leen ci dara mag yu mel nii boo ko amee da nga leen koy sant nee sanga bii nag moom mooy Serigne Talla mhm. Serigne Talla ngi moom moom gëw ma ne ndax war nañu ko sant ndax booy xool moom Ibrahima Serigne Mamour ndax bi ñuy ne ci mbir yi. ñoom ñoo ñu ci ilifoon ñoom lii yaakaar nañ ne ndam rek lañ ciy am du aajo ñu leen di sant daaw da mbay jóge ba Bargny macha allah mu ngi bàyyi fa am tudde mook maam mbay laay magam ñoo àndoon mu am fa taxawaay bu rafet moom it lépp ci diine ji la sant nañ leen bu baax ñu ngi gërëm ñoom maam Njoon rakkaam ak mbay laay maam Seydi Sadiq Asan laay Momad laay am nañu ci coono bu rëy seen taxawaay am na ci taxawaay bu rafet yàlla na leen yàlla fay xale yi ñoom papa pay jërë ngeen jëf papa laay baay moodu macha allah lépp rafet na man soora ngi waaw nee na bëgg ceeb rek ka yàq bëgg a ceeb rek ka yàq waaw moo ko yonti yàlla Souleymane Seyna Mbaye jërë ngeen jëf nee kàddu gaa ngi noonu yàlla na yàlla mottali li des waaw maam Abdou nee na maam Abdou xam naa dafa biddanti. <laughs> waaw maa ab dong ne le waaw. maa gërëm sànq ci suba. nee mu ngi koy gërëm sànq ci suba. si cër bi ñu laay jox. si cër bi ñu soxna Sadio laay jox. waaw ñu ciy am mbégte bu baax a baax. ñu ciy am mbégte bu baax a baax. nee na mu ngi si tudd sànq Seyna Mañoon ak sang seeni ñoom ñu am si taxawaay bu rafet. taxawaay bu rafet. ak seen mag ala. ak seen mag ala. ala moom it macha allah. ala macha allah. yal na yàlla barkeel xam-xam bi yal na yàlla barkeel xam-xam bi. ñoom ñëpp ñu baax la ñoom ñëpp ñu baax la ñu. ñu ngi may wax ne Seyna Issa. ñu ngi may wax ne Seyna Issa. mu bàyyi Seydi Thiaw mu bàyyi Seydi Thiaw. moom it mu ngi fi. moom it mu ngi fi. ñu ngi leen di fàttali Serigne Mamour mi incha allah le 7 septembre bi ñu dëgmal ay xalem dañuy tari incha allah ci buntu kër yaa ulay seen kër. la koy defee mu ngi ci oo jullit yëpp bëgg nañu ñëpp ni ñu teewe nii waaw sëriñ bi nag mooy yor waxtaan wi bàyyi bàyyi bàyyi alxasan waaw neuf heures lay tàmbali nee ñu ngi gërëm sëriñ Mamour Diop waaw di papa ci taalam yi ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may wér xale yi nee na ñu ngi gërëm Serigne Idrissa Laye mu Chérif Abdoullah Assane Laye moom la may wax léegi nii nee na Idda am na taxawaay bu am solo ci bés bi nee na yëkkati na alal ju bari def ci nee yëkkati na alal ju bari def ci kon Idda dafa jaar rek fii dafa jaar fi ay baayam daan jaar looloo ko war loolu moo leen war ñoom njaboot gi yëpp yàlla nu yàlla nangul. Serigne Ibrahima. Serigne Ibrahima. waa seen teraanga. waa seen teraanga. mu Serigne Libaas mi. mu Serigne Libaas mi. ñu ngi leen di sant bu baax. ñu ngi leen di sant bu baax. ak waa Laayeen. jàmmalaay TV. ñoom ñëpp gërëm nañ leen. yal na leen yàlla fay. ne wax ji. waaw mat na. sunu Baye Ndiaga. nee Baye Ndiaga. waaw moom gisuñu ko. gisuñ ko. waaw waaw yàlla. nee ñu ngi koy ñaanal yàlla. waaw. waaw Baye Seydi moo fi nekkoon. Baye Seydi rakkaam nekkoon na fi. nekkoon na moom sant nañ ko. ñu ngi koy sant. gërëm nañ ko gërëm nañ ko. ñu ngi leen di ñaanal yàlla. ñu ngi leen di ñaanal yàlla. yàlla na leen yàlla fay taxawaay yi. daanaka. Mhm. xam naa thème bi waaw thème moom déwén rek lay dem. incha allah macha allah. waaw imaam imaam imaam Talla Diop. waa mu ngi gërëm mbooloo mi. ci taxawaay bi ñu defal. ci taxawaay bi ñu defal. bàjjen mama laay. bàjjen man sax dama noon moom dafa waxoon ne. dama noon du ci wax lu bari. du ma ci wax lu bari. waaye doon naa ci wax lu tuuti. waaye doon naa ci wax lu tuuti rek. bu fekkoon si neexul. bu fekkoon ne. dafa fekkoon ne asamaan si neexul. moo tax sëñ Ibrahima bi mu si waxee. moo tax sëñ Ibrahima bi mu ci waxee. ak Assane. ñu yaakaar ne. loolu rek doy na. loolu rek doy na. waaye bàjjen maam Amilaay. bàjjen maam Amilaay. ma wax lu ndaw. daaw bi ñu appelé ba pare. daaw bi ñu appelé ba pare. ba ñu dem fa. ba fa. daf ma woo. daf ma ñu toog ñu toog. ñuy waxtaan. ñuy waxtaan. moom alas la may woowee. moom alas la may wax. wala mu ne ma doomi wala mu ne ma doomi sëriñ bi. mu ne ma mu ne ma man day démb man day démb dama tëdd ñu may wan dama tëdd ñu may wan sama kër si biir aljanna sama kër si biir aljanna loolu wax naa ko Mansoor mu ne dama tëdd ñu may wan sama kër ñu may wan sama kër si biir aljanna ma dugg ba ci biir naa dem naa bay réer ñu ne ma nii ma yeew mu ne ma alas loolu lan la ma ne ko ah ma ne ko ah, bàjjen loolu doy na waar di wallaahi bi ñu appelé ba mu teg une semaine c'est la fa ñëw wax ak moom loolu ñu waxtaan waxtaan wu yaatu yoo xamante ne waxtu wi xaju fi beneen yoon danañ ci wax waaye bàjjen ma maa laay mën nañu wax ni. mën nañu wax ni. cëru góor. cëru la yoroon fii ci kër Seydina Limaamu. ndax man nekkoon naa ci diggante bi. ndax man nekkoon naa ci diggante bi. diggante Serigne Bass. diggante Serigne ak maam Ami. ak maam Ami. xam naa li ne. xam naa li ci ne. te yónni nañ ma. te it yónni nañ ma. bataay bataay yi. ci bàjjen maam Ami. ci bàjjen maam Ami. bàjjen maam Ami bàjjen maam Ami it. yónni na ma bataay. yónni na ma bataay. ci Serigne Bass. Mhm. loolu laa ciy loolu de laa ciy wax. xam naa ci lu bari nag. xam naa ci lu bari nag. xam nañ ci lu bari. génn ak àddina gi nag. génn ak àddina gi nag. mu ngi ma fekk. mu ngi ma fekk. Euh, sàngal kam. sàngal kam. wallaay wallaay. ñu naxarlu ko nag. nee ñu naxarlu ko nag. bu ñu sañoon. bu ñu sañoon. loolu buy am. loolu buy am. dañ koy fekk. dañ koy fekk. waaye bi ñu ko yëgee. waaye bi ñu ko yëgee. ci saa si ñëw. ci saa si la ñu ñëw. yooyu yooyu yeneen i waxtaan dañeen ci waxaat incha allah yàlla nu yàlla nangul yàlla nu yàlla barkeelal xale yi nee na ñu ngi gërëm monsieur le maire ci taxawaayam bàyyi Seydi moom su ma taxawee di ko gërëm dañ naan moom laa faral te nëbbuma ko moom laa faral kon laay Mamadou ñu kay koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yen bi yàlla na ko yàlla oyofal yàlla na ko yàlla woyofal yal na yàlla woyofal yen bi soxna xajatoo ngi toog macha allah njaboot gi yëpp toog ñu dox sanga yi ñu def ñaan incha allahu rabbi ñu mën a ko kon ba déwén. bu xatul ne bu xatul. dinañ dugg nuyoo. danañu dugg nuyoo. bu fekkee nag taw bi dafa kii. ne bu fekkee ne taw bi nag dafa wàcciwaat. waa ëtt bi dañu koy jégal. waa ëtt bi ñu jégal ñu ko rek. waaye dinañu nekk. ne. si kër tante jatu fii. si kër tante jatu incha allah. ren fii la ñuy yendu incha allah. yàlla ñu yàlla nangul. yàlla yàlla nangul. yàlla na yàlla barkeel bés bi. yàlla na yàlla barkeel bés bi. Omar. ma am benn nag bu may bu may bu may joxe. sanga bi ne mu am message bu muy joxe. si suñuy wéyjur. si suñuy wéyjur. suñuy wéyjur. si suñuy wéyjur. suñuy baay baay yi fi ne. du ma nee du ma ko leeral. waaye liñ ciy wax. liñ ciy wax. mooy antum saadaatuna. antum saadaatuna. in amartumuna nafal. in amartumuna nafal. wa in nahaytumuna natruk. wa in nahaytumuna natruk. asalaamualeykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf ah, waaw waaw <laughs> jërëjëf imam bismillah